وفضائل بدنية التسمية والروح بسم الله السواك والسويت والزايد والضليق على قصرة ولا في رخص للدم في الوجه في الكلام واليدين ak raxas loxo fan ngay waxee bisimilah soo jëlee sa palaas bi di dem pour jàpp ngay wax bisimilah soo sa palaas bi wala dugg si waaye sooy dugg si duus bi wax bisimila sooy dugg si duus waroo wax turiya ndax yenente bi nee na la salaata liman liman laa wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alayh yenente bi nee na bu seetaan sa mbokk jullit bi mu ñàkk mu ñàkk yore njàpp dañoo jiw yonente nangu julli bu amul njàpp ak dañu nangu jàpp bu amul bisimila di ñaareel bi mooy socc siwaa ko ak socc soccu sooy jàpp ba balaa ngaa jàpp ngay jël soccu nga soccu soo amul soccu nga def boros waaye sama bi hmm. nga jàpp ma tollu gémmiñ nga jël sa loxo bi nga jàpp ma tollu gémmiñ nga jël sa baaraam booy taayee waaw bomb sa sa gémmiñ waaye fekkee si koor la nga soccoo ko socc bu wow soo ko soccee socc bu tooy ndox bi mën naa jàll sa koor waaye bant yi tuuti mën naa jàll yàq sa koor wa zaida ak doole ko ala xasal bi ola si raxas bu njëkk raxas bu njëkk bu farata la waaye yeneen ñaar yi ngeneen mën nga bàyyi raxas bu njëkk su la neexee nga raxas raxas bu njëkk bàyyi ñaar yele waaye nga raxas ñett yëpp moo gën a fil waji si ak raxas wal yadayni ak loxo wal bidaayatu wal yadayni ak ñaari loxo yi wal ak wal bidaayatu ak taxaw bi muqaddimi raasi wal bidaayatu ak tàmbali bi muqaddimi raasi si njël boobu suy tàmbalee suy jàpp nga tàmbalee pour garab baaxal sax si bopp mu soog a masaa mu dem waaye suy masaa su xam fu karaw yam day jël ñeenti mu teg ko ci dalee ko ci xef yam mu soog mu fu yam mu dalee foofu masaa waaye fekkee daal la mun baaraam benn baaraamam bu muy taaye mu dalee ko bi ba fu mu mu dale mu masaa ko mu bi daa sëq ba egg si ci xet bu muy taaye teg ko ci xet ba fu mu yem mu dalee foofu yóbbu yow xaddim yi war si ñeel boobu wa sunnati ak toftalante sunna yi wa qillatul maayi ak néewal ndox toftale sunna yi toftale farata yi mooy sunna toftale sunna yi mooy ngëneel wa qillatu maayi ak néewal ndox bi néewal ndox bi mooy néewal ndox bi mooy sooy jàpp bëgg cër alal wodd bi si cër jàpp yi nga jël ndox bi yëpp këpp ko si cër danga war a def ndox cër bu nekk nga masaa ndax yàlla bëggut kuy yàq moo tax mu ne inna allaha laa yuhibbu inna allaha laa yuhibbu zaalimiin yàlla nee na inna allaha laa yuhibbul mufsidiin wa tartiibu sunnati foofu am na ñeenti anam nga tëftale farata yi juróomi anam nga tëftale farata yi tëftale ko mooy comme ni ñuy baaxoo di jàpp nga toftale farata yi toftale sunna waaye dugalante woo mooy nga ñëw raxas loxo ba ci sa kànjare nga galambi ko sorox ndi ko fiiru nga war a raxas kanam nga delloo masa boobu masa ndaw nga ñëw def kanam raxas loxo ba conc nga masa boobu masa taan bu toftale nga farata ñetteel bi mooy toppatale farata yi waaye toppatalaatewul su nekk mooy mu ñëw di raxas kanam di raxas loxo ba si conc yi masa raxas tànk masa bopp masa tànk kon kooku toppatale na farata yi waaye toppatalaatewul su nekk mu toppatale sunna yi kon kooku toppatale na farata yi waaye mooy daa ñëw def loxo ba si cafkaay njëre mu war a def mu war a def galax li ko sorof li mu ñëw def fiir delloo masa bopp masa nopp après mu galax li ko sorof li kon kooku daa toftale farata yi waaye toftale wa sunna yi ku toftale sunna yi waaye daa toftale sunna yi waaye toftale wul farata yi mooy koo xamante ne daa raxas loxo ba ci cin bi koo xamante ne daa raxas loxo ba takkaay ngeray mu galaf ndiku sorof ndiku fiir mu delloo masa boobu mas def masaloo mu ñëw mu toftale na farata yi toftale na sunna yi mu war a ñëw toftale farata yi waaye daa def kanam war a def loxo ba ci coow ci def tànk masa boobu après sooga def loxo bés jooju kon kooku toftale wu sunna waaye toftale wu farata juróomeel bi mooy koo xam toftale wu sunna toftale wu farata dugalante wu mooy mu ñëw raxasul tànk def bopp delloo masaa bopp def galax ndiko sorox ndiko fiir mu def kanam après raxas loxo bés jooju après mu sur masaa nopp raxas loxo bés def kaay njëlee kon kon toftaloo farata yi toftaloo sunna yi dugalante wu leen ñeent anam yooyu ñoo fi am wal munaawayi ji wa taqdimu yumna raxas loxo ndeyjoor ala yusra teg si càmmoñ nit ki cër boo ne ñaar la rek comme loxo daa war a def daa war a jiital ndeyjoor soo tànk mu jiital nday joor soog a teg càmmoñ cër boo xam ne ñaar la rek na jiital nday joor soog a teg càmmoñ nopp ndax nopp soo ñëwee dangay masaarloo ñaar yëpp sanawa yajibu dina war taxliya lexyati taxliya asaabiam ci yadayni bu xalil baaraam loxo yi wa yustahabu sopp nañ ci asaabiam rijlayni bu xalil baaraam tànki nit ki war na mu xalil baaraam loxo yi su xalilee baaraam loxo yi su xalilu baaraam loxo yi dañuy kon kooku day am bàkkaar waaye dañuy xool fekkee tooy kon day am bàkkaar fekkee xalilu ko waaye tooy na kon kooku day am bàkkaar waaye njàpp njàpp li baax waaye fekkee xalilu ko tooyut kon kooku njàpp li baaxut day am bàkkaar fekkee si baaraam tànk yi la nag dafa woor da dañ kaa soog baaraam loxo yi dafa woor waaye baaraam tànk ndax baaraam loxo si cëru sunna bi la bokk baaraam tànk su ko kalil su ko kalilut te tooyut kon kon jàppali baaxul waaye amul bàkkaar waaye su ko kalilee mu tooy kon jàppali baax na amul bàkkaar ويجب جنوار تقليل اللحية وقليل ما تقليل اللحية وقليل سكنسي الخفيفة ما في الوضوء في الجنب دون الكثيفة si walis waxtaan mu ne si gis su oyof mooy si hin soo xamante ne soo xoolee dina la gis der waaye bu bu sëkk bi mooy balaa nga gis der bi il faut buddiis bi mooy boo xamante ne nga kaa gis ci foo nga su oyof bi boo ci jàpp dafa nga xalil moom laab der bi waaye bu bu bëri bi dafa war bu oyof bi dafa war nga xalil ko ba mu laal der bu diis bi nag bu sëq bi daf dañ kaa sopp nga masaa ko noonu rek wa yajibu dina war taxliluha sikkin si fil xusli sangu wala kaan doon bàyyi na wa yajibu dina war taxliluha ko fil xusli si sangu wala kaan doon bàyyi na wala kaan doon nekk na kasifatan bu tàng si sangu la képp am karaw dañ koy xalil laal der in uridu illa islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh